kilomètres yi ñu déggee quoi. مولاي صل وسلم demal ci arrière. waaye importance bés bi dafa nekk bésu bésu ñaan bu nangu bésu boo xamante ne euh, bésu dox mbokk la euh, ndaxte boo xoolee bu fi euh, taf Serigne Baati Ndiaye nga xamante ne moo sos dëkk bi moo sos moo tax ñu def ziar bi fi mu fi jógee léegi ëpp na juróom benn fukki at donc 60 ans te yàlla def na ba léegi vraiment tey la nit ñi gën a am pas-pas di fi ñëw di ziar di ko ziar si te loolu dafa nekk mbir mu am solo te aussi xam nga nit moom bu ko yàlla mayee barke balaa nga koy xam mu génn àddina te tey génn na àddina 60 ans après tey la yëf yi gën a gën a xumb tey la nit ñi gën a taxaw loolu nag sant yàlla la bu mu ci boolee ñun ñii ñu bokk ci njaboot ji ba tey ñu mën a taxaw fii def lu mel ni waaw xamal leen ni rek tout simplement euh, appréciation ba ma mën a pèlerin yi seen ñëw bi kontaan nañ ci parce que wax dëgg yàlla boo wootee yàlla tamit bu kenn ñëwul. gaa du la teree am yàlla waaye nag lu gën mooy que nit yi ñëw ndaxte lu baax moom euh, lu baax moom wax na baax na nit yi ni ñu gën a bëre rek ñu xam ne loolu dina jur jàmm joo xamante ne dina dina dina sax moo tax it tey gis nañ nit ñi ñëw nañ lu bare bare bare seen taxawaay te ëllëg aussi bés boo xam ne nit ñi nañu gën a ñëw te loolu nekk na loo xamante ne loolu la ku nekk di ñaan boo amee bés sa bés tamit nit ñi wuy si la nekk na lu ama am solo loo xamante ne ñun rafetu nañ ko lool. lu ma mën a wax tout simplement si pèlerin yoo xam ne ñëw nañ fii leen xamal ni gis nga ñëw fii ut si fi ñaan ñaan dafa am solo parce que ñaan mu ngi commencé fu pexe jeexee pexe fu mu jeex fa ñaan commencé bon na ngeen xam ni bon euh, dañu nekk jamono boo xamante ne comme niñ ko waxee projet yi. Euh, situation yi mooy lu bëri nit ñi dañ koy entreprendre dox bon nga xam ni pexe mu ngi bëgg a jeexal jamonoom jamono ñaan moo ñëw léegi actuellement donc képp koo xam ne ñëw na fi jàppaleen ni war nañ yaakaar si moom ni ki déwén bu ñëwee incha allah dina am yokkute bu mag mooy ndax ci dolli nag loo xamante ne loolu sama sama sama sama sama remarque personnel la nag kenn yënduwuma ci waaye sañ naa ko wax gis nga dëkk Sengeer bi xam nga ñan la gën a jig gan dëkkoo fi nga ñëw fi ut fi ñaan <laughs> kooku man tam mën naa recommander loolu mën naa leen ko wax donc ñoo xamante ne feneen leen ne fu affaire yi kale kale kale ñëwal fii boo fi ñëwee boo delloo fii ba déwén incha allah di nga yokk ba gis ko. waaw xam nga dafa nekk euh, fii mooy exemple bi nekkoon nañ fi ba ñàkk jàmm tax fe dëkk bi gent mais nit ñi ñëwaat waaye xam nga jàmm boo amee kenn du ne man maa tax. jàmm bu amee dafa jaar na si yàlla waaye dafa dugg si xol yi donc tey ñu mel ni waa MFDC taxawaay bu bees ma gis si ñoom depuis ay quelques années franchement di di taxaw tànku jàmm loolu dafa nekk loo xam war a sant gërëm leen ndaxte nit lépp loo xam ne dafay andi jàmm kenn waru ko xeeb nu mu ndaw ndaw ndaw ndaw xanaa nuyoo bu salaamaaleykum sax dafa nu mu ndaw ndaw ndaw am na solo si mbir mi parce que nit yi tongoor duñu duñu duñu wax salaamaaleykum sax de ak nu mu mu tuuti tuuti noonu bon nag gis nañ effectivement seen taxawaay année ba léegi tey ñun ñëpp ñu sañ jóge fu ne ñëw fii di fii donc loolu dafa nekk loo xamante ne xanaa ñaan yàlla rek mu jëm. Euh, si lu ñu gisagum président Bassirou Diomaye Faye bu yàlla defee ba mu jël bopp réew mi gis nañ ni yëkkati na ay tànk yu mu jëkk yëkkati te gën a bëre te ku jubal si këru diine yi loolu da dalal na suñu xel ñun taalibe yi bon nag nañ jàpp ni bon e koo xamante ne la am na fu mu teg këru diine te fii këru diine la. man jàpp nañ ni. Euh, xam naa ne projet yoo xamante ne ak xéewal yoo xamante ne jagleel na ko këru diine yaakaar naa ne Senghor du ci des ginnaaw.